yàlla may ndam di ñaanal képp koo xamante ni yaa ngi nekk école de lutte Balla Gaye am combat maa ngi lay ñaanal nga am ndam mais damay damay xamal ne àdduna géejawaay Maguette Seck soxna na làmb ji te géejawaay Maguette Seck ndaanaan la Maguette Seck mbër la bu kenn dul nattable te incha allahu rabbi bu samdee dinañ xam ne mbër laa bu kenn dul nattable waaw incha allahu rabbi am na solo nga wax léegi ci ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène jël ci moom exemple ni su ma ñëwee dinañ xam ni euh, Eumeu Sène mooy sama royuwaay mhm. mu mel da nga jël exemple ci combat Eumeu Sène bi passé mhm. gars yi ne woon diggante mag la ak xale mag bi ñëw def différence Sa Thiès euh, su amatee combat yàlla na ko yàlla Sa Thiès champion la man jëluma foofu royukaay mais dama jël royukaay pour xam ni mhm. nit warul warul warul décourage ci boppam doomu aadama du décourage ci boppam man musuma décourage sama bopp du ma dem kër kenn nga naam fii la nekkoon lu ma ñàkk ñàkk maa ngi suma ngor lu ma am am maa ngi suma ngor te ngor moom mooy ngor mooy nit dignité bu desee ci nit dara desitu ci te am naa ngor am naa dignité am naa jom kenn du ne Maguette Seck moo fi ñëw di taxawaalu kenn du ne Maguette Seck moo jël yi fi jàmbur kenn du ne Maguette Seck moo fi lambar lambari Maguette Seck ci loo koy dégg rek ci lu jaar yoon nga koy dégg waaw di wax ni nag làmb kenn rawagul kenn waaw fi mu toy nii kenn rawagul kenn te incha allahu rabbi bu samdee dinañ xam ne kenn rawul kenn incha allahu rabbi te affaire ci làmb ñu gaynde la nekk rek fit moo koy jëlee ak jom te dinaa ko loqati ji ci kàttanu yàlla voilà noonu la fa demee wax ñu gis ñu gis coach Golo coono yi nga xamante ni mu la koy teg ci combat bi mu mel ni combat bi am na fu mu toll waa école de lutte Balla Gaye waaw au passage am na sama benn rakk boo xam dafa sori ci man te muy bëri spécial bi nekk nit koo xamante ni tamit xam nga mhm. man li ma xaw a dal ci làmb rek moo ko xaw a dal quoi mu xaw a am tardement boo xamante ni mhm. maa ngi ñaan ci yàlla mhm. maa ngi ñaan yàlla yàlla nga mu mayal jon Kara ndam may ma ndam may yeneen booyi ndam parce que John soxla na ko John comme ni ma nit ñi rawee ay moroomam ñu ngi koy raw te te te ko am ngarmi la si làmb ko am jom la si làmb mais yàlla moom mooy dogal man chaque jour dañuy waxtaan man ak moom ma ne ko làmb mun maa man ko soxor rek moo bon soo soxoree lu nit am doo ko yéene te da ngay gën a tardé soo soxorul lu nit am di nga ko yéene boo waree tibb yàlla bu tracé nga effacé mu tracé war nga fa dalay dalay effacé tracé nit ci loo nekk sa morom buy bëree yéene ko ndam ànd ak moom gunge ko ba mu jeex bu kebul ko wan benn xolu ki ñaan man école de lutte Balla Gaye 2009 dañ ma doon wax course ñu doon bëri ñëpp maa toog si banc bi maa ngi doon coach boobu coach amul. Mhm. ma def ko 2009 ba 2019 ma bëri si 14 combats perte ñaar. kon ça veut ko bon amul njariñ baax rek moo am solo. waaw. Mhm. mi ngi noot nañ bàyyi ba nootu gi daaneel. ñu bàyyi ba nootu gi daaneel waaw incha allah. ayca ma àggali ko ci félicité bu baax baax lii moom am na solo na ci mbër yëpp di roy. mais mais mais mais loolu léegi c'est normal. Mhm. parce que noot moom ku ko dul teelu booy dee doo wax sa soxla. waaye ñun moom làmb nattu la rek mais jàng nañ xam nañ jàng nañ fiq jàng nañ tawxiit jàng nañ siira xam nañ lépp waaw mais tamit nag àdduna moom xam yàlla mooy nattu nit quoi waaw làmb moom ku sañoon doo bëre mhm. mais yàlla moom mooy def sa sidit mbër mhm. voilà di di ko sante yàlla yàlla na ñoo def ay sàcc mhm. na nañoo def ay jël yëfkatu jàmm taskatu yaakaar mais yàlla mbër la ñu def nañ ñaan yàlla mu génn ci ñu si tegaat ñu si yoon bu baax rek voilà am na solo tey nan nga gisee sa adversaire euh, Mbagnick Kaïré waaw sama adversaire li ma ko gisee moom xam nga mu ngi ci forme lii laa bëgg bëreeg mbër mu am nekk ci forme mhm. mi ngi ci forme bëgg na bis bi mhm. waaw te bis moom ku ko bëgg rek xam ñaari nit bu ñu bëggee bis rek bis bi neex mhm. waaw te bis bi dañoo war a bëree ñun ñooy tëj saison bi daanaka combat Balla Gaye kii ñëw war na ñoo mën a bëri làmb joo xamante ni ba déwén gars dañ koy waxtaan voilà noonu la fa dem waaw macha allah mais pare nga pour def ak boobi am Diop joxal Njaay xeex non non man yow man yow bi su ma demee bay bay bay bay xalaat bañ a bëree moom wala xeex ak moom mm. loolu sëy ma bàyyi ku ne gën a fekkoon muy bëreeg ñeneen meneen mbër yeneen mbër. Mhm. kay booy bi kay affronté booy bi du dara si man. Mhm. booy bi daal soir bi ne pirip mhm. xale la. Uh-huh. dinaa ko xaar une minute su ñëwul man dinaa ñëw. waaw macha allah am na solo yaakaar naa lamb jooju la treize la buñ ci jigee école de lutte Balla Gaye am na beneen bés. bu mu jëm muy la vingt et Euh, juillet diggante ki nga xamante ni mooy Balla Gaye ak am Moustapha Tine tey euh, fan ngeen toll tam ci ci ci bis boobu waa di ñaanal Balla rek yàlla may ko ndama ah, parce que parce que parce que suñ tête de file la suñu mbër mu mag la nekk ci bis ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla oyofal ba mu oyof parce que loolu rek moo Balla moom su daanee mu ngi mel ne ñun ñëpp ñoo daan mais ñun ñi ngi ñaanal suñ bopp ndam ndam lu kawee suñ njortu di ko ñaanal mbër yi nga xamante ni ñu ngi fi nekk am tamit am combat ci sama bis tamit yàlla may leen ndam noonu la demee waaw parce que affaire moom fi mu toll nii ku nekk soxla waaw man moom damaa soxla damaa soxla lool lool lool lool waaw waaw noonu la fa demee nag na solo tey tey ngay pare combat muy muy pare combat pourquoi pas ñu gisoon euh, Maguette Seck ak Balla Gaye 2 bokk benn euh, entraînement ñoom ñaar di parendo ah non non non non loolu munu man xale laay bëreel ki may bëreel boo moroomu booy yi la il faut que rek si booy yi laa mën a ñëw pour soxlawul forme rëy rëy bu ëpp quoi booy laa soxla band barajee booy dugg si ñoom am lu ma am xam nga mhm. waaw làmb ji làmb xale la ko moo tax ma ñëw ci xale yi mais kon sinon mhm. fële laay dem loolu du dara mhm. làmb moom xam ku ci nekk ni nga koy waaj yaa xool ni nga koy waajee rek nga waajee ko waaye ñu ngi ñaanal suñu tedd de daal yàlla na ko yàlla may ndam di ñaanal képp koo xamante ni yaa ngi géej waaye am komba yàlla na la yàlla may ndam voilà di ñaanal John Kara sama fiis yàlla may ko ndam waaw macha allah nan nga gisee seen dernier face to face ki nga euh, mooy Balla gay ak ki nga xamante ni mooy Tapha waa no non Balla mu ngi ñëw bu baax quoi ñu ngi gis changement bu baax yàlla na yokk yàlla na ko yàlla lafal cat may ko wér Balla moom bu ko bu ko yàlla mayee wér rek xam nga moom dara jomb ko mm-hmm. waaw parce que am na fit am na jom am na ngar mi te loolu mooy làmb làmb ñett yi la fit jom ngar mi waaw daanu nag aayul mais ñàkk jom ba daanu moo bon waaw mbir mbër na nga def fulla def fayda sama ñaari doom yoo xamante ni tamit dañuy bëre ci bis sama journée bi muy Lamine Golo numéro 2 ak ak kan ak Papa Yanda waaw di leen ñaanal yàlla may leen ndam rek parce que tamit xam nga borom borom bitigu mbagg boo gis boo bee xol bi magasin la ci fekk waa di wax tamit sama benn booy bu ñuy wax garga yoon bi dëgër na mais góorlu dina baax te yaa ngi ci yaa ngi ci foi yaa ngi góorgóorlu yaa ngi entraîné gëm nga yàlla te loolu rek moo am solo waaw gëm yàlla xam ni lu jot rek yomb voilà am na am na ñoo xamante ne ñi ngi xëcc dara mu ñëw te jigu luy ñëw si yow rek yàlla na nekk li gën ci yow mhm. waaw booy bi tamit euh, booy kii loo Karim di ko wax ni ko fi nga teg sa tànk foofu la mhm. lam moom jom rek moo koy def mhm. te vraiment vraiment yaa ngi ci lancé boo xamante ni lancé jom la quoi voilà bu nii moom bu bu dakkul xam nga champion di nga ko doon ci kàttanu yàlla bul bàyyi góorgóorlu voilà noonu la fa dem mhm. du ma du ma du ma du ma génn ci li nga xamante ni mooy le 21 ndax olof dani loo xam-xam sàmba ma sàmba gën laa xam sàmba te yàgg gi nga xamante ni yàgg nga ko Balla Gaye mhm. ku ne xam na ko ngeen defandoo lu ne euh, bërëndoo mbapat su ma juumul préparandoo combat bu ne tey état wu Balla Gaye bi nga gis keroog non Balla nii ma gisee moom xam nga Balla moom bu sawaree rek cokkari hmm. xamal ni mi ngi ak dara hmm. waaw Balla moom xam nga yàlla moo def bu dara nekkee ci moom moom mooy mooy mooy mooy euh, fas bu lekk pepp hmm. day yëngatu boo gisee mi boo boo gisee mi bajantu rek xamal ni daraa ngi si moom uh-huh. waaw Balla moom dara nekkul si moom man su taxawee dama koy xam waaw mais gis naa ni dara mi ngi si moom yàlla na yokk Balla moom li muy waxee ak Tapha Tine li muy waxee noonu la war bëree waaw non non Balla du bëree noonu mais yow yaa may revanche Balla Tapha Tine. Mhm. doo da nga koy fekk si ci maninam da ngay wax ak moom. Mhm. ba signature da ngay wax sa adversaire da ngay wax ak moom. Mhm. xamal ko ni ko du ma la may lool loolu mooy làmb. mais li mu waxee est-ce la war a bëree. non non Balla nag doful nag baala nag ku def vingt ans de carrière kenn dootul wax nooy bëri Balla soo ko bàyyee moom rek mën na pare combat am dem bëri ji mhm. waaw mais dafa fekk ni xam nga làmb benn làmb du yëngatu mhm. te làmb moom xam nga benn nit du ko def mhm. waaw na gën a góorgóorlu te xam ni ñu ko yaakaar dañoo bëri man Balla mënu ma ko bañ parce que Balla nit dafa may may ay million ndax Balla waaw nit di ma jàppale ndax Balla man Balla su ma defarul dara sax xam nga nit a ngi may defal dara ndax moom voilà loolu rek moo am solo quoi voilà noonu la fa demee waaw noo gisee adversaire bi ah non moom tafatin moom xam nga mi ngi ci forme fit mooy bëre. Mhm. waaw te tafatin man ni ma ko gisee xam nga non non non buy wax sax da ngay xam ne kii ñemewul adversaire am bu dee xam nga li liir nga mbër mhm. da ngay xam ne kii nii mi ngi wax nii li muy wax day dégager lu bari mhm. waaw waaw di di ni daal xam nga tafaa moom làmb la daal yàlla na ko yàlla Balla Gaye yàlla na ko yàlla may ndam mais làmb la tafaa nag sama mais mais non large bi gars yi di wax tafaatin ak Balla ndax Balla mbër la boo xamante ni su parewul combat de compilance bi day ndaw loolu day am. Mhm. mais su ñëwee ba paree ba taxaw. Mhm. day andiwaat forme am normal. Mhm. waaw te tafaati nag Balla ëppante wuñ dara nii lañ mës a ëppantee. waaw bi ñuy jaamante ba léegi nii lañ ma bi ñuy bëree mbapat. ba léegi nii lañ ëppantee. waaw kon loolu mënu ñàkk si sport. waaw Modou Lo ngi nii tooyul nee na teewul mu ngi lëmbe. waaw làmb du ci ngand quoi. waaw làmb ci. mbër bu nekk ak sa naataango ak li ko war a indil. waaw loolu la digal mu xeex ak Tapha Tine. ji laaj moom arrangé na ko. Balla bi gars yi di tiital Balla kay. non non ji laaj rek arrangé na ko. Uh-huh. waaw mais man nag damaa nekk si bis. Uh-huh. moo tax fi mu ne nii xam nga Euh, wax ju bari ji daal xam nga man mënatuma ko fi mu toll nii damay xaar la sama bis jàll ma doog a mën a développé waaw ci yeneen développé mhm. waaw di wax ni waa géejawaay gépp nañ génn non sama adversaire li ma koy wax xale la mi ngi ci yoon nee na man taxuma koo jug ay ñeneen ko tax a jug mhm. waaw na góorgóor rek bu làmb jaam wane ko mhm. waaw loolu la rek làmb moom booy wax su làmbee na nga ko wane waaw am na solo kontaan nañ ci yow bàyyi la waaw di di di wax ni waa géejawaay gi yëpp maa leen i maa leen i woo di leen di leen wax nii seen doom seen mag seen xarit Maguette Seck doo jàmbaar ji man jàmbaar laa man soo tàppee samay combat da nga xam ni kii jàmbaar la mais yoon bi moo sooxe mais nag loolu taxul ñu découragé taxul ñu ñàkk gëm yàlla dañoo gëm yàlla mais ñun mosuñu bëree ñu nañu càmbay mosul am ñi naqaree daan laa daan di wax ni waaye gépp nañu génn ñi nga xamante ni ay ay dañuy daw jàmbaar ñi nga xamante ni jàmbaar moo leen ta waa jàmbaar yi laay woo ñi nga xamante ni isamblu ma lax duñu ay duñu ay duñu ay yaama neex duñ xoolee nit yaama neex waa du ñu dañuy bëgg nit te yàlla tax waa dañuy bëgg garmi man garmi laa man garmi yi dañ may bëgg te bu làmb jaa incha allah rabbi di nga xam ne garmi yi dañ may topp man musuma man du ma yaafuus man gaynde laa te incha allahu rabbi samedi yàggul. Mhm. bu samedi dinañ xam ni man man man man man jàmbaar laa. Mhm. parce que jàmbaar moom ma yar muy Père Balla. Mhm. waaw man ci keppaaru jàmbaar laa jógee. waaw di ñaanal Père Balla yàlla na ko yàlla xaraa jana képp koo xamante ni yaa ngi fa woon yàlla jëlale fi yàlla na yàlla xaraa jana ñoom Mafal say ñoom Ikiri Waalo ñu gaañoon ci accident bi ñoom Pam Mama Aline Sey euh, Baye Gora ñëpp maa leen ñaanal yàlla na leen yàlla xaraa di wax ni nag. làmb ji ci la ñuy xam màgget. Mhm. day des si làmb ba léegi wala dafiy jóge. incha allahu rabbi waaw. Mhm. waaw waaw di woo dafa am koo xamante ni day sonn ci man Mbaye Défoncé. Mbaye Défoncé waaw mbay Défoncé ay millions la la fere si si sama làmb. bi may voyage yi di génn di di fu ma mën di dem da yëkkati xaalis bëri jox ma Tafa. Mhm. Lomfor di wax Lomfor yàlla na ko yàlla. fëgg dafa def soog yàlla na ko yàlla fëgg loxoom mu wér ci kàttanu yàlla balaa làmbaji ba mu ñëw nekk sama wet waa di gërëm koo xamante ni may nekk mbap bi may bëre mbapat ba léegi moo may sotti gàllaaj muy saada mm-hmm. saada kenn la si man mm-hmm. ak xaadi mbay maa ngi koy sant di gërëm giif mm-hmm. bay di waaw muntaka belal waaw di di woo ñëpp ñoo koo xamante ni rek yaa ngi bëggee Maguette Seck man dañ maa bëgg de gars yi dañ maa bëgg dafa am ñoo am dañ maa bëgg ñàkkuma ñu ma bañ mais ñu la bañ da lay yokk njàmbaarte mhm. mais man dañ maa bëgg kuy bëgg jàmbaar rek may bëgg waaw parce que garmi laa daal mhm. te incha allahu rabbi bu dimanche samedi mhm. incha allah dinañ xam ni Maguette Seck garmi la waaw di ñaanal képp koo xam mbër nga nekk école de lutte rek yal la yàlla def champion waaw te loolu laay ñaan chaque jour loolu laay ñaan waaw di di leen wax ni xam nga mhm. man yeex naa ñëw si école bi mais lépp rek xam nga mhm. di lijjanti nekk si ay réglage mhm. nekk si lijjanti loolu la rek mais su ma sañoon chaque jour maa ngi parce que aw ma lu waaw parce que fii lañ ma tàggatee fii laa déggee daali fii laa déggee lépp war ma fee mais nag xam nga cin bu ah, taal bu tëw a tàkk bu ne nga koy uppee waaw loolu ci xel yi rek kuy nit nag dina xam ni yoon bi bu sooxee il faut que ko lijjantee lu ne mais Maguette Seck ku ne xam na ni Maguette Seck jàmbur moo ko gën a sax boppam man su may rakk yii ma nekkal fii si kër yi su ma gisee nit di dóor nu normal sa damay ñëw wax la su ma gisee nit di bëree normal sa damay ñëw wax la parce que tey jii kenn xamul kuy jariñ nit tey jii mën na fekk ni man maa ngi fii di bëre mais booy nekk si ginnaaw ñoo may jariñ ëllëg waaw yàlla moo xam voilà noonu la fa demee waa di di nuyu monsieur le maire bay di bay di mhm. baax gis naa nu mu sonnee ci làmb ji jàppale na ma waaw di bëggee ñëpp koo xamante ni yaa ngi yaa ngi jàppale Maguette Seck daal maa ngi lay bëggee di leen wax ne leen samedi. Mhm. nañ ñi waaye gépp génn mhm. ñëw jàppale ma teew liiru suma mag la. soit liiru suma grand la. Mhm. maa ngi koy ñaanalal moom tax may ñaanal Balla Gaye sax ndam. parce que moom da waa moo tax gën a tax may ñaanal Balla ndam. parce que suma mag dafa bëgg lii dafa bëgg Balla. waaw te man liiru sama grand la daal parce que man xaw ma suma yaay xaw ma sama papa liiru laa xam xam nga te te liiru joué na ci man lu bari mhm. parce que bu ma nekkee xale néegam laa doon fanaan waaw bëre su ma ko mënee yàlla moom moo tax. Mhm. kon kon ma grand suma papa la. Mhm. waaw xëy na nag bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk mais dañuy jote. mais liiru suma grand la. Mhm. waaw di ko ñaanal rek li mu bëgg si géej waaye yàlla na ko suñu borom defal. waaw Balla Gaye yàlla may ko ndam ba ba ba liiru dikkaat. liiru dama koy xool sax di ko yërëm parce que ndurootul sax nit. voilà mais li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal te incha allahu rabbi man xam naa sidit bi yëngal Balla Gaye mm. te samedi ko yëngal. incha allahu rabbi. macha allah voilà bu soobee yàlla. am na solo